commissaire Cheikhna Keita ñu lay dalal si réew mi di la nuyu. Hmm, maa may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey euh, ancien commissaire de police euh, doonoon directeur OCRTIS ñu door li nga xam ne mooy mbiru euh, drogue fan yi dafa gën a bëri sa saa su nekk ñu koy gën di dégg commissaire nga foog ne lan moo explique bi lépp waaw phénomène bi ñu gis nii. mooy que ni li nga wax de plus en plus ci événement yi ñuy yëg tous les jours mm-hmm. alkaati yi ak gendarme yi ak douanier yi ñu ngi gën di jàpp ñi nga xam ni dañuy nekk ci traficu Sénébar yu mel noonu mm-hmm. loolu premier jàngat bi mooy ñi nga xam ni kat seen mission la ñu ngi liggéey mm-hmm. ñu ngi liggéey te liggéey bi ñu ngi koy gis ça ne veut pas dire nag loolu tekkiwul ni situation bi gravul mais nanu noté loolu ñu mhm. ñu ngi liggéey parce que ci beneen côté bi tamit phénomène bi daf fi nekk mhm. nekk fii ak métitam nekk fi ak réalité bi nga xam ne il faut que ñu nangu ko su fekkee ñu ñu ngi jàpp te ñu ngi fi ça veut dire que ñiy def trafic bi ñoom ñu ngi si seen projet te seen projet boobu mu ngi dox mu ngi développé ni mu waree. Mm-hmm. ba tax na tey quel que soit résultat bi nu am dañu war a gën a vigilant gën a taxaw gën a teey bañ a naagu ci lenn pourquoi parce que adversaire bi mu ngi fi te lu mu mën a def dinañu gën a occupé lu mu mën a def dinañu gën a yàqal. Mm-hmm. parce que day intervenir. ci domaine bi nga xam ni day nasaxal euh, santé population yi mm-hmm. day nasaxal koom-koomu réew et loolu mooy mesure bi. Mhm. ça ne veut dire donc que ñu ngi jàpp simplement que dañu war a naagu di tàccu d'autant que ñoom tamit li nu am su fekkee daw ñu ngi ko ñu li ñuy wut su daw ñu ngi koy am. Mhm, mhm. Euh, ci ci fànn googu est-ce que tey euh, mënuñu ko tamit jàngate ne euh, fii ci Sénégal dañ koy consommer lu bëri moo taxit ñu def ko tamit seen lieu de destination. non non du loolu c'est que ñoom da ngeen di comprendre ni kiy trafiqué. Mm-hmm. fi muy trafiqué moom moo koy def marché marché bi am na am na depuis ay lu yàgg yàgg bi fiy consommé drogue yëpp mais ki nga xam ne day trafiqué moom réalité boobu lay jëkki jàpp mais mm-hmm. day seet ni fii marché bu ko intéressé la parce que dina fi mën a stocké mm-hmm. fii marché bu ko intéressé dina fa mën a jaarale. Mhm. fii marché bu ko intéressé la parce que dina fi mën a am ay ay relais ay nit yi xam dañ koy jàppale ci ay mbiram ci mu euh, mu mu mën a jàllale mu mën a yóbbu mu mën a denc yi tamit mu yombalal ko ci ñi nga xam ni dañu nangu. ñu jox leen xaalis pour ñu yombalal dara parce que ñoom am na nañu capacité seen biir liggéey seen biir ay fonction ñu mën a nasaxal contrôle bi nga xam ne moom la ñuy def ci biir Kaffrine mm. loolu moom mooy seen action de manière conséquente donc en plus de ça su fekkee am na lu tuuti marché ñoom dañuy yaatal yaatal bi day dem ba ki nga xam ni moo leen di jàppale mm-hmm. ñi day jaay d'abord ki nga xam ni marché bi ñuy jaayee dañuy fexe ba créer fa ay consommateurs yombalal leen jegeel leen may leen mosal leen ñamal leen contrôler leen ba ñooñu commencé jënd ñii dox seen diggante ñooñu du leen dox xaalis da leen di dox drogue leen jaay leen lu ngeen mën a jaay lii yéen ma koy danga may delloo yii euh, maa moom daa mm-hmm. yaa moom mm-hmm. ñi nga xam ne dañ leen di paaseel sax du du jaay fii suñu paasee ba noppi au lieu jox leen xaalis dañ leen di jox drogue leen lii mooy seen fay ñooñu débrouillé dugal ko seen taatu kër hmm. jox xale yi fii def ko xaalis donc ñoom seen politique lool la occuper terrain bi utiliser possibilité fi nekk pour fii nga xam ni fi la trafic bi nekk consommation bi gën fi mais pour que collaboration bi gën a bari seen yoon ba ñu mën a yóbbu feneen ak feneen ak feneen wala ñu mën a denc denc bu commissaire wax nga ko sànq ci say biir wax ndax mën nañoo jàpp ne tey jii eh, dara liñ ci jàpp am na li nga xam ne liñ ci bàyyi mu dugg moo ëpp. waaw loolu dafa nekk réalité wu trafic de drogue parce que ñi nga xam ni dañuy trafiquer ñoom dañu am lu ñuy wut mooy xaalis bu ñu dóoree fukk wala fukk ak juróom. Mhm. lu ci jàll rek. seen xaalis ak seen wut-wut mën na feeñ suñ ci jàppee ay nit suñu saisiree ñoom li ñu jaay mën na génne seen investissement donc seen affaire mu ngi dox. Mhm. quel que soit les dégâts. Mhm. mais état bi d'un autre côté yi tamit moom contrôler phénomène bi lay def donc li nga xam ni mu ngi ko ciy jàpp day wone toujours que ni moom bàyyiwul. rawuñu ko rëccuñu ko mu ngi leen téye ci ngemb téye bu dëgëra dëgëra dëgër ba fu ñu toll suñu tëbee mu tëb ànd ak ñoom suñu wàccee mu wàccee ànd ak ñoom suñu tëbee ñu mu tëb ànd ak ñoom ko ci trafic de drogue mhm. ñu jàpp ko ñaari yi na ko mhm. alors que juróom-ñett ci bi performance bu rëy la. Mhm. effectivement bàyyiwu ñu bàyyi parce que ñaar yooyu doy na leen pour que li ñu def ci juróom-ñett ñu perte. ak liñ ci investir yëpp suñu jaayee lii récupérer ko et quelquefois dañuy envoyé dix colis huit yëpp jàll. Mhm. donc ñoom noonu la ñuy jouer terrain la business la bi nga xam ne ñi ko yoree c'est des cartels cest à yu rëy yi nga xam ne seen wutukaay mooy jaay drogue jaay médicament jaay leneen jaay leneen. tey jii nan la état mën a taxawee ba renverser tendance bi. waaw mën naa wax ni da nga naan wax stabiliser. Mm. li nga xam ne moom la ñu jot a am. parce que trafic bi am na. ensuite mm-hmm. ñu wàññi pression bi ba mu wóor ni ñun na nañu du terrain ci ci ci trafiquants yi. Mm-hmm. mais nag pour que ñu am ay indicateurs yu wane ni fii investir nañ ko ba ñoo leen mën loolu bu amee ça veut dire que trafiquants yi daw seen affaire doxatul fii ñu bàyyi fii. Mm-hmm. te loolu moo mënta nekk ci àddina réew yëpp nii la ñuy souffrir drogue di dund réew mi réussir mooy réew mi nga xam ni phénomène am téye na ko. nan la koy téye ndëgam mooy toujours dafa am indicateur yu ko woon ni que moom kat drogue bi na saxalul santé population yi ci lu bari ça veut ci secteur yi ñuy intervenir intervention sapeur-pompier intervention santé centre yi nga xam ne ñooy ñooy surveiller intervention alkaati yi nga xam ne nombre yi ñuy jàpp quantité yi ñuy jàpp gendarmerie ainsi de loolu daf koy won ni mu ngi suivre phénomène mais de l'autre de côté yi tamit ñii nga xam ni ñoom ñooy trafiqué mënuñu progresser génn ci limite yi nga xam ni moom moo fi nekk en réalité mu ngi leen di barrer la route à ce moment dinañ comprendre ni ñun ñu ngi contrôler phénomène bi parce que eh, conséquences économiques yi génnul trafiquants yi sentiruñu seen pression noonu lu dul ñu ngi fii li ñuy am ñu ngi koy am économie bi tamit ay phénomène de blanchiment d'argent ay ay ay commerce yu fictif ay yenn affaires yi nga xam ni nekkee wu fi lu dul pour transformer xaalis ci këfin bi donc bi kenn investir ko suñu ay suñu ay industrie suñu agriculture suñu contrôler indicateurs yooyu nañ xam ne ñun ñu contrôler phénomène bi malgré que dina am ay champs de blanchiment de d' euh, mais ay phénomène nga xam ne dañ koy parce que su duggee seen su ko commencé rek. Mm-hmm. am na ay yu lay woon sa économie na sax na pourquoi parce que da ngay gis xaalis bu bari mais en réalité état bi du ci profité ay nit rek la. ca Thiès commissaire dégg nañ ci euh, wala sax liñ ciy dégg euh, li mel ni euh, bëri na ci biir semaine bi rek comme exemple dégg nañ ci lu jëm ci trafic de drogue ñu jàpp ci deux cent quarante kilogrammes chanvre indien ca Thiès tamit muy Mbour foofu la ñuy taxaw ñu jàpp fa tamit benn explosif bu tollu ci vingt cinq kilogrammes ñàkk kaaraange googu lan moo tax wala Mbour spécifiquement euh, mu mu fës fa nii bon Mbour d'abord il faut ñu d'accord ci ni dëkk bu particulier dëkk bu rëy développement am gaaw nit ñi bari xeet yi bari comportement yi bari. Mm-hmm. ku nekk ak liggéey wut si Mbour ku nekk ak liggéey dox mu nekk possible am na ñi xam ni tourisme rek la moo leen fa indi. Mm-hmm. jël seen xaalis dajale ba noppi nekk ci hôtel yi di def li nga xam ne moo leen fi indi foofu terrain la bi nga xam ni dafa propice ci trafic ça veut dire terrain la bi nga xam ni foofu la trafic mën a nekkee mën a amee parce que soxla yi dafa bari façon nit yi dafa bari. Mm-hmm. deuxièmement Mbour itam nekk ci benn posture bi nga xam ni dafa nekk dëkku géej. jàkkaarloo géej bi ubbeeku ci sunu côte sénégalo-gambienne bi nga xam ni côte bu compliqué la petite bi compliqué dafa dafa dafa nekk ci situation géographique bi nga xam ni dafa yomb contrôler pour trafiquants yi hmm. distance yi ñuy daw pour accoster bariwul hmm. ku ku courant yi c'est des courants ay courants yu favorable la hmm. am na ay làqatukaay donc day propice ci trafic yu bari bari bari bari te ñoom xam nañ que dañuy exploiter situation boobu pour mën a approcher et trafic bi daf fi yàgg daf fi yàgg tey mën na feeñ ñi mais il faut ñu d'accord que ni Mbour particulièrement mhm. dafa nekk yoon wi nga xam ni trafiquants yi suñ ko gisee réew mu mu am il faut que ñu yokk ko surveiller parce que trafiquants yi dañ koy utiliser mhm. ñu wax ci explosif yi euh, moom it nan nga ko mën a jàngatee explosif yi tamit j'allais oublier ça mm. kenn defarewu leen Mbour mm. kenn jaayewu leen Mbour kenn stockewu leen Mbour explosif yi pour Euh, secteur minier la c'est-à-dire wut ay Euh, or wut ay yenn euh, gànjar yi nga xam ne ci biir suuf la nekk di explosif suuf pour jeex Kédougou lañ ko gën a xaar waaw Kédougou ak yenn zone yi mhm. benn société bu particulière bi nga xam ni du société sénégalaise moo ko géré fii te amu ci stock mbuur yooyu yëpp bu amee ci environnement bii nga xam ni dafa nekk environnement sécurité da nga naan lan la doon def mbuur ba lan la doon def ci mbedd mi mhm. lan la doon def ci mbedd mi ki ko indi lu tax mu indi ko foofu est-ce que dafa doon romb ak moom wala foofu la si woon tax mu def ci situation leeralu ñu loolu mais soo ko tegee ci biir situation bi ñu nekk léegi ak li xew Mali ak li xew déjà récemment Casamance fii ak li xew Sénégal dernièrement da nga naan mais attention soo ko waxee nag dafa am ñi nga xam ne dañuy taxaw ci ni non non non du dëgg lii amu fii parce que Sénégal yow jàmm la si fii soo nee sax comment dirais encore am na ñi nga xam ni dañu bëgg nasaxal suñu administration dañu fa bëgg indi ay ay yi nga xam ni comme ñi doon wax ay ay ay ay. force occulte. Oh, force force occulte ak ñoom seen yu mel noonu. Mm-hmm. ça veut dire dafa am ñi nga xam ne dafa nekk dafa nekk ci suuf di xam ba ay nit pour wala xam ba ay situation yoo xam ne daf ñuy yàqal amul. loolu am na. Ah. force occulte am na parce que lii ngay wax nii moo ko indiqué suñu nelawalee suñu bopp ni force occulte am na te lii xew suñu réew bi dañuy nax suñu bopp déjà ak ni suñu relation ak certains voisins ak histoire relation yooyu dafa indi ay poche yi nga xam ne dafay mën a justifier que ni force occulte am du ma dugg ci ay détails mhm. mais ku yeewu rek di xalaat loolu di nga xam ni force occulte du benn waay benn camp militaire bu nekk fële mais ay wutkatu pexe lañu yi nga xam dañu am seen motif motif bi mën na nekk stratégique ça veut dire que ci yorinu réew ci nguuru réew mën na nekk ci alal ci alal te yooyu yëpp seen seen moyen mooy réew mi tàkk su takkee dinañ mën a am contrôle si contexte bi mel noonu nag nga romb ci fii nag ay explosif à Mbour da war a taxaw nga xoolaat sa bopp bu baax a baax menace bi mu ngi fii mm-hmm. menace bi yàgg na fi menace terroriste yàgg na fi boo xoolee ñun suñu diggante rek ak fii zone bi Mali ainsi de suite nga xool pays du golfe de Guinée Côte d'Ivoire ñoom waxatuñ dara parce que dañ leen tous les jours amu amuñu suñu débat yi mhm. est ce que xaar nag ba nekk ci situation pays golfe bi rek soog a nangu réalité bi tey na ñu war a fàggandiku bu baax a baax a baax a baax tax nangu ni menace bi am na fi ñu taxaw taxawaayu vigilance et je crois que suñu état gis na loolu mu ngi ci taxaw. kon daal pour yow autorités yi dañoo gën a euh, war a décrypter signaux yi nga xam ne ñu ngi ko fii gis euh, à travers tamit li xew ci sous région bi. je veux dire que lu yokk rek dafa gën a war a war a mën a yokk seen jàngat. je je sais je ne suppose pas que ni seen taxawaay depuis très longtemps mu ngi ci vigilance. Mm. taxaw ci sunu ay frontières xam nan la ñuy nattee ba kenn du nu mën a bett ci frontières yi wala bett ñu du yomb. Mm-hmm. nan la ñuy nattee ba ñu mën a marqué ñi nga xam ni ñoom la ñu xalaat ni fii su yëngu-yëngu amee ci biir mi. Mm. ci ñoom lay jóge nan la ñuy surveiller tranquillité bi des bi xëy na mooy li ma wax tout à l'heure nan la ñuy fexe ba population bi ci seen gëm-gëm ak seen vigilance mhm. accompagner leen ci loolu mooy population bi nekk ci pas tiit ci tiit mhm. mais ñu alerte seen bopp suffisamment soo nee danger bi mu ngi fii on vit normalement avec le danger di ko mën a contrôler mais suñu état bi àggee foofu je ak dina dem si moyens yi nag je sais que ni am na li nga xam ne duñ ko wax fii di wax fii di wax. Mm. l' état sénégalais depuis dafa taxaw ci ni man dinaa yóbbu sama niveau. sama niveau armement sama niveau moyen d' intervention sama niveau stratégie fi nga xam ni dara waru ba mën a bett te ñu ngi si liggéey guddi ak bëccëg maintenant sans naagu il faut que ñu yokk seen présence suivre événement yi événement bu xew rek ñu yokk seen présence yokk seen xarañ yokk seen mën-mën. Mm-hmm. sinon su ñëwee mën nañu bette feneen gaañ ñu ci li nga xam ni mënoon nañ ko éviter. et justement ci wàllum intervention ci la ñuy jeexalee commissaire ñu gis ne ci mission maintien de la paix ca Mali euh, ñu def ci benn xayma euh, gannaaw nag benn webinaire bi nga xam ne ay autorité ñu ngi ko doon amal muy ñoom ñooñu euh, di soldats yi ñu wax ne deux cent trente six soldats. ak euh, seen bakkan. Euh, ci bépp nationalité yi nga xam ne ñoo ngi ci MINUSMA. Euh, depuis 2013 tey jii nan nga jàngatee chiffre bi. xam nga situation Mali bi il faut ñu d'accord ni du situation wu lu ñuy wax guerre civile ay ay nit ñu déggoowul ci seen biir réew nekk ci biir réew mi ñuy taxaw fële ñuy taxaw fële ñu gerante def di. agression la bi nga xam ni dafa complexe agression terroriste da ngay gis ay groupe yi nga xam ni dañuy am seen ay gànnaay seen jumtukaay di jóge fu sori di dal ci kaw nit ñi di dal ci kaw réew mi mm-hmm. di bëtt sax frontière di ñëw di dal ci kaw nit ñi di dal ci kaw ñi nga xam ni bu développé ba gën a développé ci biir réew mi la ñuy nekk occupé espace ba di dal ci kaw nit ñi dal ci kaw réew mi di dal ci armée bi su fekkee yow da nga nekk mission bi nga xam ni danga war a nekk euh, force tampon di protéger nit ñi di protéger réew mi di jàkkaarloog ñooñu il est raisonnable que ñu war prévoir ay pertes loolu la ça ne veut pas dire que pertes yi nag dafa war a bari. Mm. mais c' est mais noonu lay demee dafay am ay pertes moo tax ñuy def évaluation yi li ciy jàngat bi kay mooy comme noonu la demee. Mm-hmm. dañu war a prévenir joxe ay moyens yu doy prévenir bo perte yi suy amit su dee fukk mu doon benn suñu prévoir fukk mu doon benn wala ñaar parce que juróom-ñett yi faagaagal nañ ko ba amul moo j crois suñ taxawee noonu dinañ mën a dem ban mission au plan du droit. Mm. ban liberté lañ leen jox. au plan du droit ban gànnaay lañ leen jox ñaata lañu nu nu organiser woo nu nu toll yan jumtukaay la ñu yore je crois que suñ leen accompagner foofu dinañu jël conséquence bu net ci deux cent trente six yii pour que su ah, dans la même période su fekkee mission bi continuer na ñu mën ko wàññi wàññi wàññi wàññi ba mu metti ba du wàgg dix wala quinze mais dans une situation comme celle-là. Mm -hmm. il faut pas rêver il faut que mu am ay dommages yu parce que ñiy dal ci ko di dal ci mission bi ay gànnaay la ñu yore déjà ñoom dañuy enregistré ay perte donc le camp d'en face day enregistré nécessairement ay perte. Mhm. commissaire Cheikhna Keita ñu lay jaajëfal bu baax a baax.